daleen ak jàmm tegub loxo ba jaxate mi yëgalaat na APR moom kay waa APR fu mu nekk nii soobu nañu nag ci li nga xamante ni moo di opposition bi mel ni gatsa gatsa gi jóge na ca Pastef ñëw ca ñoom ba waral ñoom ñi la sàkku nag moo di ñu daal libéré maanaam bàyyi ki nga xamante ni moo di seen naataango bii di ba jaxate ci nu mu gën a gaawee nag tegit nag teguñ ci benn condition ndax it dañoo jàpp ni tegub loxo gi ñu teg loxo moom mii di ba jaxate dëppawut ak yoon jaay doole dëgg nag a def waaye kii di Abass Fall bokk ca Pastef gi nag dañoo war nag daa daa daa déclenché lii di ay poursuite judiciaire jëm si ñi nga xamante ni moom la dippee ay voyou de l'affaire maître Amadou Sall bokk ñuy jàppal tànk di layal kii di Bah Diakhaté lam xam ne ni mooy Bah Diakhaté moom mi fourni na nag ay preuve maanaam lépp loo xamante ni wax na ko nag indi na ay preuve teg ko ci table bi leneen itam atu yelekaay bii di bés bi le jour dellu si nag di kii di Thierno Diagne di maire bu Sindia caabi féete da ko gannaaw lañ koy toppee nag jëm ci ab blanchissement ak lii di faux billets daanaka juróomi téeméeri million ci suñuy koppar moom lañ koy toppee waaye tamit ab coow loo xamante ni dox na digganteem ak lii di Sonatel ci ay terrain wala bokk ay parcelles yoo xamante ni ma nga toll ci deux mille sept cent parcelles ci ay koppar mu doon benn milliard moom dellusiwaat nag ci tegub kii di Bah fu mu nak dañoo jàpp ni seen naataango bii di Bah Diakhaté bokk ci ñoom mu teg loxo gi ñu ak yoon xoxatal dëgg nag lañ bëgg def ci seen kaw waral ba ñoom ñuy xam ni duñ ko nangu benn yoon bu dee source a moom daal nañ fas yéene jaamarloo ak nguur gi gi mooy toog ci seen salon teg seen ataaya ak seen njarum soow ay di critiquer nag loolu na ko téyelekaay bi source a daal di xëy fësale les écomoms dafa del soit nag ci APR alliance pour la république naan moom Macky Sall ak ñoom ànd nag la ñuy di woon nag nag moo leen mën a génne ak ci nguur gu yees gi may nañ leen nappaaje de dëggate leen waral nag ba ñuy sàkku doon benn say ngir daal fexe rek ba daal di génne kii di seen naatango bi di Bah Diakhaté leneen itamit les échos dellusiwaat ci naan ci conseil des ministres nga doon amal moom Ousmane Sonko nag noppi na ngir daal di fuye maanaam lañ ba nag lii ministère yi jëm ci convention yi ak lii finance yi moo xam ci secteur minier bi wala bokk pétrolier quotidien moom mën naan nag li jëm ci daal di mën a waat li di patrimoine foncier ak bâti bu état xamante ni dañ ko daan nag séddee maanaam bàyyee ko ñi di privé yi ci alam gu lewut ak gu yoon moom Ousmane Sonko nag soobu na ci nag daal di ay trouvam le quotidien le quotidien naañu revue des finances publiques Sonko passe Macky au fu nekk nii kay moom Iliman di Ousmane Sonko la mu nam nag def mooy examiner lii di budget yu janvier gi Macky Sall nag bu ñu moy tudd ab pétition lancé nañ ko nag jëm ci moom mi ngir ñu daal ko dellu si ca biir réew mi ndax nag li waral ñu mel dañoo jàpp ne moom Macky Sall mi mi fi nekkoon na fi mu ne pati pataaral waral ba direct ñëw samp ci ab laaj naan moom Macky Sall mi lan la nekk chauffeur nekk apprenti nekk itamit client waaye tamit lii di mécanicien ci ab oto te nag la yàqu ci ba moo amu ci benn responsabilité looloo jaaxal ñeen ñi waral nag ba ñu daal di lancé ab pétition jëm ci nag ab mandat ak ci moom yi di Macky Sall Direct News dañu xam ne lu toll ci trente cinq mille signature am nañ ko nag ci benn fan képp nag ngir daal mën a fexe rek ba moom mii di Macky Sall ñu dellu ko ci biir réew mi ah bu dee yor yor quotidien moom dafa xëy nag li jëm ci ab audit ci état financier yi daal na ko dalde ndax moom ñu toll ci six cent soixante six millions trois mille deux cent treize francs CFA ci koppar Sénégal moom la dépensé maanaam leeral tamit li nga xamante ni fa la dugal li di koppar gi lu toll ci cinq cent ko dépensé nag te amul benn papier justificatif waaye lu toll ci cent millions soixante treize mille sept cent quatre ko dépensé ci anam gu jaarut ci yoon waral ba ñuy lii di le soleil GFM Foutanké Lamco Industrie lii di GIE Ndawa compagnie Sali Princess AB Partner City bokk nag ci ñi nga xamante ni ñoo doon ay bénéficiaires waaye tamit nag ak koppar gi ñu jàpp ni am na ci ñenn ci ay taskatu xibaar ak yi nga xamante ne moo di CRD ak itamit ay transporteur yu bari yoo xamante ne financé nañ leen jox leen ay koppar te amul nag benn papier justificatif bu ko daal di leeral bu dee lépp quotidien moom dafa dellu siwaat nag ci tuxub cigarette gi nekk ci réew mi di lëmbe ci réew mi di fi jaaba jonge nag ak nag la def ci ñawteef jëm ci wér gu doomu aadama waral nag ba ki nga xamante ni moo di professeur Abdoul Aziz Kassé di ci alerte nag naan li jëm ci tabagisme ci lii di milieu scolaire bi fu mu nekk nii nag ndaw ya nang ca dugg de mbux ma ca biir milieu scolaire maanaam ca l'école ya ma nga lekk màlli tey nag baaxu ci xale yi ndax dafay daal yàq seen poumon waaye tamit jëm seen wërgu da koy daal di taka témbeel dund ak at si war a dund da koy néewal réew mi quotidien moom xëy naka daal si dellu siwaat si ni mu gën a yaatoon naan lu toll ci fukk ak juróomi doomi aadama ña faatu nag ci par minute jëm nag ci tuxum cigarette gi nga xamante nii ña koy amal nag jaay kàddu kii di Abdou Aziz Kassé sukkandikoo ci bi la jëwrin di Moussa Balla Fofana la mu xam ne moo di fu nekk nii kay la ñu mooy soxla nañu lu toll ci trois cent mille logements mel ni cent mille logements yi nga xamante moo di jàkka jafa nekk naan ñii di imaam yi dañ ko daal transformé lii di ring de box ndax nag bu ñu sukkandikoo ci ëttu yelekaay bi di source a kédi wuyoo ci turu ATN ak kii di MMB ñoo daal di nag maanaam dakkal lii di julli ga doon amal daal di agressé nag lii di imam ba waral ba a coow ma nga tàbbee nag ca kanamu yoon ma ko lii chaque a son problème dans ce pays fu mu nekk nii kay kenn ku nekk la nga yor doy na sëkk ak barke mbubu tubay ak caaye waaye bu ñu demee bàyyi imaam di xeexoo a ci biir jàkk nag lii ëpp na jeg na dayoo li ma li fi jotoon ruuse ci ëttu yi lekkaay yi ñu leen di ñaanal kenn lu jàmm